pas moi. waaw waaw waaw ni ngay jongale baaxul waaye boo doo ko neex. booy jongale lu la neex jongale lu la neex. ini bukan sekian yang mabay dan ada umit alay enggak kalau lima ako kalau lima ako sabi nandun tayo dito kay alay ay na wala ko alay ay na pa do do do ay na okay why can't you know why come on over i don't see where come to booy xam nga lan la man mënatumaa toog ci babi bii di babi guddeeg bëccëg ah nañ xool pexe booy alaaji baal su la gañee nga mer alaaji xam nga lan la adduna dee fair play alaaji waaw booy xam nga laa bëgg yow ah, xam nga lan la waaw alaaji orange money ah instant yi bu bees ñu koy falsifié comme naa li ma xalaatal rek xalaat defal naa doo ma woor ku ma xamul ko ñu ngi eh, ko non non. xalaatal. xaaral ma woor ko xaaral. salaamaaleykum. allo. allo waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va soxna si. ça va sëñ bi. naka suba si. suba saa ngi nii rek. waaw waa Orange moo di la wax ni da dañoo tànn ñeenti numéro yi nga xamante ni sa numéro ci la bokk. Ah. di la jëloo njukkal ni gañe nga fii benn loo. benn loo. waaw loo bi nga xamante ni da nga cee gañe 700000 nga ci gañe. 700000. waaw ak ñaari écran plat ak benn frigo bar. Ah. oui. waaw loolu moom neex na di. ah loolu koy dafa neex dafa dàq neex. waaw nan laa def ba jot si. waaw ci boo ko bëggee jot da ngay dem ci benn poste orange money. cash money. waaw léegi boo fa demee. waaw nga envoyé ko deux cent quarante mille. deux ci boo bëggee jot ci numéro bii nii. ci numéro boobu laa koy envoyé. waaw ci numéro bii nga koy envoyé. waaw man yoruma xaalis nii. ah mais soxna si tamit li sa xéewal la de waa Orange Money ñoo la ko jagleel. ah waaw. Ah. waaw léegi xaaral maa ngi dem xool poste Orange Money bu ma gën a jege. léegi léegi amul benn problème amul benn problème waaw waaw. Ah. ok waaw patienteel dégg benn problème. waaw ok. ah booy defal ndànk. waaw damaa kontaan alaaji lii la lii woon. booy dëgg bu ma joxee damay dem mbuur laa jëm directement mbuur. bu nga encaissé affaire bi ñu seetloo ci digg. waaye bu ñu ko seetloo man maa wax. léegi man léegi man maa génn idée ma lay may tuuti rek man maa amul alaaji xam nga lan la man yooyu ma ci de maa génn idée bi maa génn idée bi. amul problème waaw amul problème. Paaco waaw wala déet. waaw de moom neex na 750 mille ak ñaari écran plat ah lii de xaw ma tey fan laa jëm fan laa koy wax jee ah, lii de du mbuur mbuuraake la xaaral soxna si. ça va. ça va bien. Eh. man de damaa bëggoon dugal ci numéro bi 240 000. 240 000 waaw. waxal numéro bi. 77. waaw 677. waaw 45. waaw 90. 240. waaw 240 000. dem na. dem na xaalis. xaalis bi waaw. ah man de ki ma woo. ne ma gañe nga. dana ma ci kanam dina ma dugalal. dina la dugal mais dama ne xaalis bi laa soxla 240 xaalis bi moom moomu ko war a jox moom moomu ko war a dugal. mais fii amul loolu. ah man de loolu la ma wax dana ma rek gañe nga. dama ci kon léegi ah ñu xaar ko rek. déedéet yow doo demee noonu. ah eh ana xaalis bi man ne wóor na yàlla defuma dara man loolu rek la ma eh, wax dama ne deux cent quarante mille na génn billaahi defuma dara man dara ma gañe nga moo ma yebal fii moo ma yebal fii mais doo dem mais moo ma yebal fii deux cent quarante mille da nga koy génne léegi da ngay xaar ñu woo doo ma xaar kenn daf day génn waaw waaw soxna si yaa yaa ngi may gaañ dama ne doo dem mënoo dem doo dem du ma la dafa ma déedéet da ngay def ndànk mënu maa def ndànk doo dem yaa ngi may gaañ doo dem lan la lan la du dem non waaw mais dafa ñëw déedéet dafa ñëw ni ma naa ko dugalal deux cent quarante mille ci benn numéro waaw ma pare di ko laaj xaalis mu naan ma ñooñu ñoo ko woo ko ba gañee dañ ko jox xaalisam mu roog a fay waaw baal poñe bi ma la baal poñe baal poñe bi mënu ma koo bàyyi ah man defuma dara kooku daf maa woo rek ne ma gañe daf laa woo ne la gañe nga naa dem si benn kiosque orange money waaw léegi xam loolu la ma def loolu la ma léegi moom du dem ndoom du dem soxna si dimbali ma nga bàyyi poñe kii moom du lii nan la la mën a dalee ah da nga yor deux cent quarante mille yoo ko yoroo 240 mille yoo ko jox. yoruma ko waaye kon xamoon nu ñuy def. kii sàcc la. non soxna si du sàcc. du ma sàcc la xamoon nu mu demee kii sàcc la. du ma sàcc kooku loolu ma wax xam nga du sàcc am. yow nan nga mën a fekkee ay jigéen di leen sàcc. Ah, waaw a fekkee ay jigéen di leen sàcc. jugal waaye kii daful yow. jugal waaye daful waaye ko yow sàcc baa ngi ne. yow ko yoroo yow may ñu waaye sàcc baa ngi ne taxaw nga yëkkati mu médiateur. yow ko dof nga. dama doon revendiquer rek. sama yow nekku eh, may ñu kii yor na yéen eh xaalis génne ko yow soxna si soxna si doo mën a dem soxna si doo mën a dem taxawal waa léegi dañuy négocier lu may négocier taxawal waaw comme te demee na waa léegi xaaral xaaral léegi ma xool ñu xool arrangement ma arrangement xaaral xaaral xaaral xaaral ma woo sama papa xaaral ma woo sama papa doon laaj rek sa papa sama papa laa woo sa papa mu ñëw léegi ba yow xaaral ma woo ko woo ko saa bàyyi ba ba dama xool ndax gaañu mën ma bàyyi wala mënoo ko ba ma kii kaw dof la dëkk di door ta xamoon na dama eh, xam sàcc baa ngi nii ne doo def ndànk yow da ngaa dof waaye te yow damay woo sam papa eh, nga waa ba wala mënoo ko mënoo waa ba bu ma laalaan ah. allo allo papa grand baal ma papa dama am problème ci casque orange money bi ci wetu pharmacie bi. boo ñëwee da nga fekk yow da nga dof dafa tax ñu met la ngay taxaw di xoole. waaye maa ngi jégalu dama xam nu mu demee loolu du fay. mais boo dikkee doo laajte. waaw maa ngi lay arrangé yow sa problème maa ngi dégg. yow sàcc baa ngi nii nga dëkk di mbañaate. gannaaw du ma sàcc. grand pardon du ma sàcc. doo sàcc wala ma wax du ma sàcc. triangle ki ma woo ne ma lay wax loolu la ma wax. salaamaaleykum waaw ah, doom na ngeen def. papa papa ñëwal. papa ñëwal ñëwal. non non taxawal ne ma neema nii. Hmm. xoolal si. walla. neema nii. lan la man daal papa. lii kese la. daa am ku ma woo benn waay. waaw woo léegi. ne ma. ne ma orange moo ne dañ lay doolee jukkal. waaw ne ma da ngaa gañe. da ngaa gañe ñaari écran pare ñaari frigo. orange bi waaw waxee loolu ba noppi. yow mën nañu doon naa dem xooli def orange moo ne. waaw mu dugalal ñu dugalal ko deux cent quarante bu mu mën a jot si loolu. ma ñëw si kees orange bi uh-huh. wax ko ndaw si ne ko dugalal ma ci numéro bi deux cent quarante mille. ma ma ma pare. Uh-huh. ndaw si ne ma xaas ma ne ko xaaral waa ma woo ma gañ nga ma war a dugalal ndaw si ma indil ma attroupement. naan ma sàcc nga ma doon sàcc. may ma may ma ma ma may ma may ma ma benn yow man da nga maa yab da nga maa yab hmm. te que mooy fii nga woo ma amul wax lu lii yow ku la jàpp si jàpp ku la bàyyi bàyyi sàcc sagam ko ne nga mën béy bu ndaw noppi noppi noppi noppi bul wax may wax xam na maa yab yii mooy yan dof nga yow ku la woo rek xam ku la woo nga ñu ne papa kii woo amaa ma xaay ma jëli ko dof mi nga doon ma xam laa yasa yaayam yam papa du ma dof du ma doonee dof ba xanaa yow ko ko yow am ko ko daa nax nax na la yow mën ngay doon ndax nag ba nga dee yaa ngi nii léegi léegi léegi nag léegi loo def léegi noo def ah. papa daal man looloo tax ma woo la xam nga su ma ko xamoo du ma la woo. man sama wooy yàq nga sa woo. yàq nga sa woo ndax man amul loo jox. amoo loo ko jox tey lii nekkul a seer nag. ah papa da ngaa dof. kon mu dem eh noppi dof li ma doon. nit ki woo la xam nga da nga ñëw rek yàq xaasam nii. xam nga yow li nga def nii yéen a ngi ñëw police yow tëj la yow. police la yow xam nga yow yaa ngi ñëw police dañ nekk en vie ndax wéroo xam nga wéroo léegi nag sama yoon néew si ku mën eh, ma may ñu wax ji na. xam nga lu ma bëgg 240 mille laa bëgg bu génn waxoo fi lenn fi ñëwee ba léegi. waxoo fi yaay papaam yaa ko fi nekkal. waaw ma fi nekk 240 mille di tënd ko wala ma dem police. allez man ngaa gisee. yow laa yaa ci dem police. police la jëm yóbbu ma rëbës. police la jëm police yi xool. dem. yaay bare kon ko moom. mu ngi téye papaam kii moom lu a dem moom. eh aywa eh, ko bàyyi ko rek dama ko dama koy bàyyi. Ah, man daawu leen. oui ma. juma seen seen natt ba ka teg woon fan yële ana xaalis boobu. natt ba waaw. maa koy jëli ni ko jox ko kii. xanaa loolu. natt ba. laay dem jëli papa nattu jàmbur yooyu. sama yoon néew natt bi natt bi soo soo ko jëlee. baalu ma la baalu ma dem prison ndax natt baa gën a garaaw. ay nit ay nit laa boot. yow ay nit bii sax a tane natt ba. loolu sama xool maa ngi dem yi sa natt ba. fu ne fii. gis nga papa fii a dem. maa ngi dem ñu ñu na gaaw léegi mais moom du a dem. ndax xëy na yow papa ñëwee fay nga doom maa ngi ñëw léegi. ma ko laal su ma ko laal nga dee. dugal ci biir gas bi papa yow ma. yow yaa ngi jël deux cent quarante mille jàmbur yóbbu wuñ la. dama ngeen di ci xaalis bi. doom nag eh, maa ngi ñëw maa ngi ñëw. dogal nii dogal ci yow xamoo lu lu lu problème demee nga ñëw naa ma nga ñëw li may dóor xoolal li may dóor. maa ngi jégalu xoolal li may dóor. maa ngi jégalu grand. xoolal eh bu leen xeexee fii yow ndox mi ak jóge leen eh, buntu kër ma doon envoyé envoyé loo xaalis somme bu toll ci naa ko ko nag ma pare fay ma mi ngi tëj naa di xaar seen ba ñu ñëw bu ñu ñëwal yaa ngi ñëw waaw d'accord waaw. te yow fi nga nekk ba sa papa ñoo ñëw da nga jaay sàcc ak trian rek tey dina leer tey doo génn yow. su ma mënoon lekk naa lekk man li ngay wax dara neexuma si. yow fay moo gën. waaw man maa PAM ñëw. moom laay xaar. PAM PAM PAM dina réerul. <laughs> PAM naa mel ni daa réer. doom jee gën a réer. PAM ku ne xamee PAM am nii yow xamee PAM am. man loolu lijjanti ma ko 240 000 laa xàmmee ma. PAM na réer. li ma moom ah. ah ñaar la ñaar la ñaar la war a jox xaalis. 240. 240. doon si moom moom mu dëkk. xam fu mu dëkk de benn inconnu la rek bu ma naa ko envoyé. allez doo ko biree ma ma ma xool ko rek. kooku kii di mën a ubbeeku 240 mille mooy génn. mais fii prison fii la fi nga nii. xar xool ubbi ma kii. ma ma ubbi ma xool ko rek ubbi ma xool ko rek ku baax ubbi ma xool gi eh. dama ne yow sëñ bi 240 000 lay xaar bu dee yaay bàyyam ñu mën nga fay ko moom mu génn. yéen a nga xam bàyyam kuy bàyyam. kon loolu gëntu ma ko déggoo ma li ma la wax xanaa. yow mii yow 240 000 lay xaar du ne la yaay bàyyam sànq fee ba ñu waxee. ah kon sànq dama sànq comme mu ñëwee taxaw fi ak bàyyi xam nga woo ko yow mii bàkkee wéroo dafa nga nekk rek dafa nga. yow may ma jàmm ak sa blog bu direct bi. dëgg nga fay moo gën. yow mii yaa ngi direct kon kon nga direct xam naa la may seet de sa kam gi mel ne porte ndaa yemal yemal de yoxuma ko teg fi mais bi yow yow moom doom client ku xëy ku xëy ñëw fii rek doom client client yi mel yéen soxla ma ko yow mii soxla maa yi sàcc yow gën a xam loolu yow xamu ne xamoo dara ni ngay def dof nga rek ko ko xam ne xam dof la waaye xaaral so sama doom moom na na génn suñu bâtiment boobu ah xanaa deux cent quarante mille ñëw teel lii kon teel lii eh teel yow compte sa bopp compte ko compte sa bopp te nga ama junni boobu ama junni si góor bi. li de mën a am jàmm am sàcc yi ngeen doon. ama junni boobu. yow puusal. Eh, maa ko ubbi sama bopp maa ko ubbi sama bopp. sa affaire la maa ko ubbi sama bopp. loolu sa affaire la yow ku tey maa ko ubbi sama bopp. sa affaire la waaye nag génn kees bi. puus ma de. na génn kees bi rek. maa ko ubbi sama bopp man damay liggéey na génn maa ko ubbi sama bopp. maa am loo wax. maa ko ubbi sama bopp instant yow am nga loo wax. yow bañ ma waay. puusal ne maa ko ubbi sama bopp. lu ko lu ko daan nag dana yow. ma génn waaw ma génn damay liggéey fii. boo demee dëgg la sax. Eh, du ma sàcc. sàcc nga man xaw ma sàcc. sa papa ma fay ma sàcc. yow sàcc ngeen nam leen rey que ramu yàlla yow benn benn dèjà rek yab yow nii nga mel mel ndax doom ja ndey ja bay woo teefoo ma ma jëlee saa lii ay fii nga ma dëkk bitis rek bitis rek. bitis soo bitis. ma su ma su ba xool rek du ma am dara su ma xëyee ba xool du ma am dara esa yaayam mi nga fi nekkee ça va ça va bien lii moom jeexu tak tey tey tey ma jox la mu cent franc ndëkk na def si ñaari vax dem dëkk ba. dëkk ba papa man du ma dem benn dëkk. yow kay moom Thiès moom pare nga fi mu cent def si ñaari vax ak benn buut yi nga dëkk ba. du ma ma papa lii dootuma ma yóbbu dëkk ba. dëkk ba nga jëm. maa ngi yow kay amuloo jël sareet nga jël sareet. papa dimbali ma yooyu. oto doo ko jël nii bay ma. ay dof ngeen ay dof ngeen mën a doon yow nee ma nee. yow may ma dof yow yow wiro papa kii du ma tontu kii dof a wiru. maa ngi fi. am sa client. client bi. waaw dem nañu. noonu la mujjee. dëgg naa fay. ñu fay la. waaw ñu moom nu mu demee noonu. ba fa ñëw daal ne naa ko envoyé somme bu toll 240 xam nga ma envoyé ko pare di ko laaj xaalis bi mu ne dafa am ñu ko war a envoyé moom tamit ñooñu lay xaar xam nga après man tam ma téye ko ni ko mënoo dem noonu la demee après ci la papaam mujjee ñëw fay. papaam ñëw fay. waaye moom daa daa daa ñëw daa daa yow waxoo ko yow daa daa ne la envoyé rek yow nga envoyé. waaw foofu nga juumee. Ah. foofu nga juum nit bu ne la dama dañ maa damaa bëgg envoi dama damaa bëgg damaa bëgg nga dugal deux cent quarante mille waaw da nga naan ko carrément indil xaalis waaw ba mu jox la mm-hmm. bu la joxee nga loo ko dugal mm-hmm. bu ne la ah man day yoruma fi xaalis dañ rek naa ñëw dugal fii nga xam ne kooku njubkat njublankat yi waaw noonu ngay def waaye du ñëw rek ni damay dugal deux cent quarante mille nga dem dugal nga dem dugalal koy noonu de ku fi mënti ñëw ni la jaay ma muy lu mu mënti doon ne bu bu nee la jaay ma ne ko indil ba pare. ba mu jox la. nga doog a tey bu fekkoon ne woon ne tey jii yàllaa ci def sutura ne ko mos waaw. waaye comme papaam fay na. li fay na ba mu mat. fay na ba mu mat waaw mais bul defati noonu moom. waaw ku la mënti ñëw ni la dugalal ma. ne ko ana xaalis bu la joxul xaalis bul envoyé. dégg nga